jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontaante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Dalifort Dalifort nag ñëwoon nañu fi ci jafe-jafe yi nga xamante ne ni gone gi léegi nga xamante ne ni mu ngi koy dundu métit bi nga xamante ne ni mu ngi koy dund waaye njàqare bi nga xamante ne ni famille ñu ngi koy uh, dund ñu daal di amoon yaakaar lool ci waa wasaare wooluñu ñu daal di ñëw file daal di moo di émission ngir ku mën a jàppale xale boobu daal di koy jàppale te yàlla rekk tax ndax xale bu ndaw la di dund ak feebar boo xamante ne ni feebar bu metti la ay famewam amuñu doole loolu nag sababoon fii suñu ay tànk gannaaw ba ñu tourné vidéo bi nag am na ñoo xamante ni daal nañu ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax jot na am ñoo xam ne message nañu ko daal di koy wéef xaalis waaye ñun tamit ki nga xamante ni tey moo ñu fi daal di yónni pour ñu indil ko li nga xam ne moom la participer ci gone googu doomu Serigne Saliou mama Fatou mi nga xamante ne ni Serigne Saliou rek la bëgg Serigne Saliou rek la safoo Serigne Saliou rek la doyloo loo ko naxee ci Serigne Saliou moom bëgg na saa bu ñu dugalee vidéo xel rek suñu xel ci moom lay njëkk a dem loolu moo tax bi mu gisee vidéo bi daal di koy seetaan daal di ñuy yónni ne lii ma leen jox nag xeeb naa ko lool waaye dox leen ba ci kër xale bi ngeen yóbbul ma ko mu nekk sama njàppale ci moom am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñu yónnee nañu ko moom fu ma yéegee rek dina ma jox li nga xamante ni moo di message yooyu bu ko defee ma sant leen daal di leen gërëm waaye yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen a jàppale xale bi tamit mën ngeen ko jàppale ba léegi ndax ordonnance yi des na xale bi li mu waroo fajoo des na kon vidéo baa ngi noonu damay dugg rek ci biir daal di joxe xaalis bi waaye tamit xool ñi nga xam ne jot nañ ko avant ma daal di def li nga xamante ni moo di bilan bi nu mu toll daal di koy jébbal ki nga xamante ne nii moom moo ko moom muy xale boobu ñaanal ko yàlla rek yàlla saafara ko balaa maa dugg ci biir kër gi rek ma wax leen que ne wasaare am na beneen wasaare muy wasaare logistique wasaare logistique nag ba am na benn service bu ñuy wax GP GP bi nag mu ngi daw diggante New York Dakar euh, comme yéen ñi nga xam ne yéen a nekk New York mën ngeen ñu woo ci numéro bi nga xamante ni moo nekk ci vidéo bi euh, bu ko defee dinañ leen euh, envoyé suñu adresse ngeen indi seen i ay bagages ñu ñëw file joxal leen ko ci loxo yu wóor waaye yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Dakar tamit bëgg yóbbu seen i yóbbante man ngeen ñu euh, contacter bu ko defee dina ñu def déplacement wala ñu envoyé leen suñu localisation bu ko defee yéen tamit ngeen daal di indi seen i ay bagages euh, kon fi mu nekk nii njàqare wala tiitaange wala samay bagage réer na wala GP bi dafa yéex daal na fiy jeex ak ki nga xamante ne nii moo di wasaare logistique service euh, GP damay dugg ci biir kër gi rek giseek famille xele bi daal di leen jébbal li nga xam ne laa jot a yor ci xaalis waaye sant ñi nga ne ñoo jot envoyé gu xalil bu baaxee ma daal di dugg ci biir kër gi jërëjëf mbokku internet yi doon safoo di seetaan site bi nii lañ leen ko waxee tey ñu dellusiwaat file ci Dalifort ngir compléter xaalis bi nga xamante ne ni indi nañu ko eh, ki nga xam ne mooy moo ñu yónni ni mu koy defee saa bu ñu dugalee vidéo xale muy maman Fatou mu Serigne Saliou comme ni ma leen wax rek bi may ubbi sànq moom Serigne Saliou rek la bëgg doyloo ko safoo ko ba tax ni Serigne Saliou bëggee woon xale yi moom aussi noonu la bëggee xale yi loolu moo tax nag vidéo bu ñu dugal mu jëm ci wër gu yaramu xale yi rek moom dafiy def kémti lay kàttanam ngir wut mu leen jàppale teg ko ci ay loxoy famille wam wala sax teg ko suñu ay loxo ñun bu ko defee dañuy def déplacement ñëw ba ci famille bi daal di leen di koy jox maman Fatou nag daal dina may cinquante mille moom laa téye nii après moom laay jox ki nga xamante ne nii moo di waajuru xele bi ak ki nga xam ne moo di Ndey Fay moom tamit daal dinay envoyé cinq mille francs ci yaayu xele bi eh, ki nga xam ne moo di Aline Sène borom saay jamaane production moom tamit nekk promoteur nekk fële ca bitim réew moom tamit daal dinay envoyé xele bi cent mille francs eh, ngir jàppale ko ko ci li nga xamante ni moo di wërgu yaramam ñu koy ñaanal bu baax a baax ki nga xam ne moo di ndey BD moom tamit daal dinay envoyé cinq euh, cinq mille moom mille la daal di envoyé moom tamit ñu koy remercier bu baax a baax moom tamit ci geste bu rafet bi nga xamante ni daal dina koy def ki nga xam ne moo di Gaye Sène moom tamit daal dinay envoyé cinq mille francs moom tamit ñu koy jaajëfal bu baax a baax Gaye Sène ci njàppale boobu nga xam ne jàppale na ko xale yi ki nga xam ne moo di Basiru moom tamit euh, cinq mille francs ak euh, ñeneen ñoo xamante ne ni ñoom bëggul ñu wax seen ay tur xaalis bi bu ñu ko euh, defee lépp ak ñeneen ñi nga xam ne indi nañu seen xaalis euh, ñoom aussi bëgguñu ñu daal di leen lim ci vidéo bi ndax ñoom nee nañu dañu def rek bëgguñu feeñ loolu moo tax bu ñu complété lépp lépp xaalis bi mu ngi toll ci deux cent mille deux cent mille la ñu ko daal di njëkk a jox moom mu daal di fajee li nga xamante ne ni moo di xele bi en attendant ñuy indi leneen li nga xam ne moom moo ci daal di tegu yi mu sant ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jaar bu ko defee ñu daal di yëkkati li nga xam ne mama Fatou yëkkati na ko daal di ñu koy jox ñu indil ko ko Adam ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay ça va ci loo leen nekk nañ si jàmm bu baax vraiment kontaan naa si taxawaay bi ngeen ma taxawu parce que jour bi leen expliqué cas bi rek da ngeen a def tout droit ngeen ñëw fii waa may ñaanal ñëpp képp ku ma jàppale ci xelal bi rek maa ngi lay ñaanal waa xale bi naka la def wërgu yaram bi naka la naka la def jamono ah, xale bi moom vraiment tane na wute na ak keroog bi ngeen ko fi fekkee waa tane na torop waaw. naka mu xa garab bi yaa ngi jënd lépp wala am na yu des. waaw maa ngi jënd buñ ma bindal maa ngi jënd waa maa ngi jënd garab yi. ci li nga xam ne jot nga ko jot ci xaalis ci ñaata la tolloogum woon ci yow li nga complété. li ma complété jëndalee xale bi ay garab avant bi ñu defee émission ba pare. bi ñu defee émission bi dem naa ñoom ñu laaj ma cinq mille ma jox leen ñu bindal ma mooy papier yi nii ñu laajaat ma cinq mille ticket ma jox leen ñu laajaat ma mille après ma joxewaat ak ak mille bi léegi ñu bindalaat ma cinquante cinq mille waaw. mais li nga xam ne ñoo la jot a envoyé xaalis laa wax moom seen xaalis boo ko xaymaa ci ñaata la toll. cent quarante mille. waaw waaw muy deux cent mille. de cent cent quarante cinq mille waa astafurlah cent quarante cinq waaw. d' accord ak li nga xamante ne ni tey euh, maman Fatou daal dinañu koy jox ñu indil la ko tey aussi muy euh, cinquante mille mu ngi ne ci suñu ay loxo moom lañ lay jox ndax xele bi bi nga demee hôpital lan lañ la wax. xale bi bi ma demee hôpital dañ ma ne naa toppatoo suyee yi tane na parce que fi bi ma ko doon yóbbu ak bi ma ko indiwaat melu doon noonu tànnee na bu baax waaw léegi après bi ma demee bi ñu ma bindalaatee bilan cinquante cinq mille bi ci la ma ne def ko léegi bu ko defee nga indi ko ñu jox la bilan opération bi dañ ko war a opérer waaw. joxaguñu la date waxaguñu ñaata moo koy opérer ci xaalis. non non daf ma bindal kayit bi rek mu ne ma demal nga defi ko fee léegi après mu dem defi ko ci labo be maa fekk xele bi lekk mu lekk waa ma dem ñu ne ma ñun pause nañ sax te moom dafa lekk ma ne ko waa après ma retrouvé waa dem si médecin bi ma wax ko loolu mu ne ma kon demal ba lundi léegi après ma dem ma complété xaalis bi mu manqué après moo tax woon demaatuma ñaata moom moo ci manqué woon. vingt cinq mille moo desoon ci xaalis bi. waaw lépp ñaata la war a toll ci booy dem hôpital suba. cinquante cinq mille lundi cinquante cinq mille laa war a yóbbu léegi ak dix mille parce que daf ma ne bu ma koy jox bulletin bi dama koy joxe dix mil parce que pour mu jox ma rossi opération boobu dama fay dagg ticket bu dix mille foofu waaw kon bi fi mu nekk nii lépp lépp cent quarante cinq yi nga jotoon vingt cinq mille moo ci jot a des. waaw moo ci des. d' léegi danga may téyel ma jox la li nga xam ne ma maa Fatou mu Serigne Saliou daal dina koy joxe euh, ci euh, li nga xam ne moom la jàppale xale bi bu ko defee yow aussi ñu mën ko daal di remercier. Mm-hmm. dix mille vingt mille trente quarante cinquante waaw ci côté caméra bi cinquante mille yooyu ki nga xamante ne nii moo di maman Fatou mu Serigne saaliw moom moo la ko jàppale nee na nga jox ko xale bi ngir ay ordonnance moom tamit mu daal di ciy jàpp maa ngi koy sant di ko gërëm rek xele bi tax moo tax mu def ko ma koy sant bu baax képp ku ci dugal sa xaalis rek maa ngi lay sant di la gërëm parce que man wër gu yaramu xale bi rek laa gën a bëgg dama bëgg xale bi wër bu baax waaw. mu ngi tane mu ngi tane waaw mu ngi tane tane na bu baax. booy dem hôpital du am jafe-jafe ak côté oto bi ngeen di dugg heure bi ngeen di dem ak yooyu. non parce que dama waxoon benn taxi pour mu may yóbbu mu ne ma boo ma mën di fay 7000 aller retour ma lay yóbbu ma ne ko 7000 dafa seer parce que man instant yoruma xaalis damay taaba taaba léegi borom jakarta bu nekk fii moom moo ma yóbbu chaque jour ma koy jox 5000 aller retour mu ne ma day ma jox 5000 te moom bu demee def ma fay wàcce ne ma heure boo paree nga woo ma mu joge waat fii Dalifort ñëw fekk si waat ma foofu indi ma. mais si bi ngay dugg ak xale bi aussi. waaw ndax loolu wóor na tamit. wóor na kay parce que ci digg bi laa koy dugal waaw. na wala ñàkk xaalis boo fayee taxi moom moo la ci dugal. waaw ñàkk xaalis la su ma amoon ah, lu ma fayee taxi dama koy jël dugal ko ci taxi bi ba mu àgg ñàkk lu ma ko dugalee taxi moo tax defuma ko. set 7000 la waxoon ma ne ko yoruma 7000 waaw ba après ma woo borom moto bi ñu boole ma fekk borom moto borom moto bi ni manoo garaaw parce que dinaa si jàpp hôpital Fann waaw. comme ñi nga xam ne bëgg nañoo jàppaat ci vidéo bi ci opération xale bi fan la ñuy jaar naka la ñuy def ndax am na ñoo xam ne aussi ñu ngi bëgg di participer ba léegi ci jàppale xale bi. waaw léegi après numéro boobu rek ku si am looy envoyé mu envoyé ma ko ci sama numéro bi mu def ci vidéo bu njëkk bi waaw 77 856 17 88 mooy numéro bi 856 17 88 am na Orange ne sax waaw. merci waaw maa ngi leen di sant yéen tamit vraiment kontaan naa waaw. jërëjëf mbokk internet yu doon safoo di seetaan site bi di wasaare nii lañ leen ko waxee gannaaw ñëwoon nañu fi ñëwaat nañu fi file ci Dalifort ngir indi xaalis bi nga xamante ne ni jot nañu ko uh, am ci li nga xamante ne ni moo di vidéo boobu le nga xam ne dugaloon nañu ko ci xale bi le nga xam ne dafa daal di feebar war a faju ay mbokkam amuñu xaalis loolu nag sabab askan bi kenn ñeneen ñi nga xamante ne ni daal di nañu ci mën a jàpp ñu jàpp ci lool lool ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni suñu yaay Serigne Saliou comme li ma wax rek moom saa bu ñu dugalee vidéo xel yépp ci moom la ñuy daal di dem loolu moo tax rek saa bu ñu dugalee vidéo moom aussi day def kéemtulaay kàttanam daal di siy participer kon Mama Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la bàyyeeg Serigne Saliou mi nga xamante ne nii moo am fay mu daal di lay fay ndax euh, fu ñu pikiiroo nga naan fa ay doom lu ñu soxla rek nga taxawu ci euh, suñu soxla yow yaa ci gaaw Mama Fatou mu Serigne Saliou merci beaucoup à toi euh, merci beaucoup Aline Sène borom saay jeune promoteur boo xamante ne nii mu ngi def lu am solo moom tamit daal di yëkkati xaalisam def ko ci wërgu yaramu xale bi Alioune seen Saay Jamaane production ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal yàlla jàmm di la ñaanal avancement bu baax a baax ni nga ko bëggee ci li nga xam ne moom nga sumb daal di koy daan ak ñeneen ñi nga xamante ne ni jot nañu lim seen i ay tur ci vidéo bi ñeneen ñi nga xam ne aussi bëgguñu euh, ñu wax seen i ay tur ñoom aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ndax tey ki nga xam ne dafa tourné vidéo dugal ko yéen ko may doole yéen a ko may kàttan yéen a ko may fit bi nga xamante ne ni eh, sañ na toog ne samay internet ñoo ma jàppale lii ñoom ñoo def lii ci xale bi nga xamante ne nii moom dafa daal di feebar eh, kon amuñ ñu seen fay dañ leen di bàyyi ak yàlla mi nga xam ne moo am fay rek mu daal di leen fay waaye yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen a jàppale xale bi ba léegi mën ngeen a jël numéro yi nga xam ne daal na koy joxe waaye teewul numéro bi dinañ ko def ci vidéo bi ngeen wéy di jàppale xele bi lee ndax ñun aussi bëgg nañu xele bi am wér yaram xele bi continuer di fowi ci ay moroomam dem di jàngi ba yàlla may ko mu doon mag waaye mag bu am xam mag boo xamante ne nii balaa ñoo def dañ naan xaar leen ba xale bi ñëw ñu daal di def kon aussi ñu ngi leen di ñaan ngeen yokk jàppale xale bi ndax dafa war a def opération joxaguñu woon rek ngir indil leen xaalis bi nga xam ne jot nañu ko foraatu ngir ñoom aussi ñu mën ko yóbbu lundi incha allah mu dem rendez-vous mais ak lu ci mën a am rek mën ngeen a wéy jàppale xale bi li mu faju ñoom ci ñun waa Wassare la ñu am yaakaar waaye ñun waa Wassare ci yéen askan bi nga xam ne yéen a ñuy seetaan ci yéen lañu am yaakaar kon vidéo baa ngi noonu xale baa ngi noonu seen doom la ñu ngi ñaan ñëpp ñu jàppale ko dooleel ko taxawu ko ba mu mën a jotaat li nga xam ne moo di wér gu yaramam di leen jaajëfal jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Khalil sama doom sama caméraman di souhaiter un joyeux anniversaire Ndeye Ami Faye série Alioune Sène sama wujju maa ngi lay souhaiter un bon anniversaire happy birthday to you de te souhaite longue vie sama wujju la waaye sama mag la sama xarit la ah nit ku baax ku yaru ko bëgg jëkkëram ku jëkkëram sagal ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire waa mbokk ndey akoy juruf yëpp ndey ami maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire waaye un bon anniversaire à fa aussi di jigéen ci ki nga xamante ne ni moo di xalil euh, borom wasaare xalil nee na mu ngi lay souhaiter un bon anniversaire di la ñaanal gudd fan di la ñaanal wér-gu-yaram nee na xam na ni nga ko bëggee xam na ni nga ko jàppee waaye da lay bàyyi ak yàlla rek moom mu daal di lay fay muy mënul def discours bu yàgg ci yow ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire dundal wëral amal jàmm ju bëree bëri ak xeewal ak xaalis bu barkeel xam kon yéen a ngi noonu ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf